السلام عليكم ورحمة الله بكي ينجلن يدلن زيار دلن بالحق ين برم سبحانه وتعالى مبلن يجد حديث تايب دفاي وخ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عبد الله بن مسعود مونت لحديث مبخني yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na wax yi nga xam ne ay ñaan la mooy yàlla maa ngi lay ñaan asaluka al huda maa ngi lay ñaan ak njub wattuqa ak ragal yàlla wala afaafa ak fegu wala xina ak koom bu defee jullit daanaka Euh, lii tënk na mbooleem li nga xam ni mooy li composé ci ni di dullit war a dundee ci àdduna ak li muy préparer ëllëg ma laaxira ñaan gi ndax njub moom ci la yërmande yàlla nekk nit bala muy jege yàlla faw mu njub tegu ci yoonu njub tegu ci yoonu njub googu ca lay demee ba jële ci ragal yàlla ragal yàlla googu moo koy may ak fegu ba du teg tànkam fu lu xaram ku doy nu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñaan ñaan gi kon ñun julli ci nan la war di def ko am solo la di ko wax suñu dund waaye mu boole ci ak mooy koom ban koom nag mooy koom alal joo xam ni ju law la te sell te def ko fu neex yàlla loolu moo tax ñu naan koom jullit buy ñaan alal na ñaan alal ju lew te barkeel te mu def ko fu neex yàlla bu toogee naan yàlla alal alal alal xëy xëpp ko ko ومويتو المصيبة لكو يجرل أقدم أي ألك الفين يباي تخل بباخ يان يعني يلا تجني تيون نجوب يلا ما ينو رجل يلا يلا ما ينو أكفجو يلا ما ينو كوم بو خمنتني كوم بسلة لا تبركل تيجي دفكو تيون يلا إن شاء الله قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته